namm naa la. waa di dara dalu la. déedéet. Ah. dara méttiwu la. déedéet. yow kontaan naa sama xol bi sedd na guy salon trop soxna ma ne waaye nee na rek moom it maa mooy ay nelaw. ndax na nelaw. si xanaa fit bi du dal te ba tànk wàccu ma. sa yaram léegi sentir toj dara. ça va tane nga bu baax. lu iya, may wa dikon ba sonnuloo sonn ma yaay dara dalul dede man de ba nga demé ba ni nga duggé ci kër gi ci nen la toog billaahi ah bëgg la gis wala bëgg la jot téléphone mënumaa fexé ba jot la xawma nu may def ba ñu wax wax ak yow téléphone opération xam nga né dafa metti ngi si jamu, aw ben problème hmm waaw man dal biñ may opéré dama don nelaw bi yeewoo lañ ma wax pare nga ba fi may waxeek yow nii sentiruma benn mettit dara dara mettiwu nii dara mettiwu ma ok alhamdulilah maa sant bu wér ah alhamdulilah sant yàlla ani imam imam nag daa génn sànq ah, bébé Mohamed mi de amul benn problème Mohamed daa sob de moom daal bu xiifee boo ko joxee mu lekk ba suur amatul problème moom. jinne ji nag moom dadaa. waaw dadaa gis nga talu sax defar néeg xam nga tey la visite dafa dem rëba seeti papaam te foofu il faut nga teel a dem mhm. kooku daa mel ni imam la de. xaar dafa ko dara sa yaram سيدي بيبي محمد داي في ني دو مال داغا بغي ديم جيلي سا دوم تي دي كوندي من دا ديس ديو مادارا تا دارا نيكو سان خيل تاميت تول بو ساسو مكو بوغون في نيك ني دوما كو ديف نخ نك ديكون موم دونغ مو نيك سما جيلي بيبي محمد تي موم dina am lu mu gisé té nak nag dama décidé woon na si àdduna dootuma def kon dara lu ko metti mais néw moy na dem rek ma sét sama do mais man dama foogoo ni mané yow di kon ah, da ngén di and ñibi kër Tafa sar ay lo sama bëgg-bëgg la man rek mais ci lolu nee na du delluwaat kër Tafa Sarr te xam naa ne ni mu waxee jël na décision boo xam ne kenn du ko ci jëlee nit ki nag bu décidé dara danga koy respecté. léegi ndey firi man mën naa xam loo décidé instant bi lan nga xalaat pour def ko ndax fi mu nekk nii waxoo fi dara lu leer. li ma décidé du lu may wax dinaa ko def nag. ñëpp di gis xam naa ne nag dina neex ñi naqari ñele waaye sama décision bopp lay doon te dina doon surprise bu mag pour ñëpp. léegi da ngay tëdd reposer wu le temps que ma toggal la bu neex bu tooy d'accord. ah waaw. Jikkoon. <laughs> ngi fi. mbaa ngi ci jàmm. kañ nga ñëw. maa ngi ñëw naa léegi. alhamdulilah rabbil ci jàmm maa ngi ci jàmm. Imaam Ndiaye. Ah, soxna si. jaajëf da ngaa génnoon. waaw ah, damaa génnoon. Ah. damaa demoon yóbbante yu ma joxoon. moom laa doon jox seeni borom. ndax sa gannaaw dama fee demoon waalo. am na ma fa doon leerlu ji nag. liñ ma joxoon nag ma doon ko jox seeni borom. ane waa waalo ñu sant baax. ah kontaan naa de. waaw nag fii de du sa tooguwaay li ma bëgg nga jóge fi dem Kër Tafa Sarr tooge fa fii moom wax dëgg yàlla moom.

kenn yéenewul waaye yàlla mel na ko teg yàlla na ko teg ñu sedd guy da nga xam ne nag lépp lu la metti woon war na laa neex ndax sa doom ji في من هيك اني خلعت ما يبقى راي نحن تخرم دما خلعت خلعت خلعت خلعت شي ادونا من فلا لا من جار اك لان لا من دف با فاي ديكون بور بي موما لبال دريتو غور غي داو سي سما يرام بي رك من كان دوما لبال كير ma lay fay naaj. mooy li nga wax rek gis nga dikkoon du lenn loo mën def ba fay ko ndax lim la defal neew ma amul de mais yomb nga gis nit ku la ko defaral dikkoon fu nekk jaan ko kook moom lu metti lu ne teg nga ko waxuma la yow sax waaye man mii rek lu nekk def naa ko dikkoon teewul ba nga sonnee feebar. dafa ñëw taxaw dimbali la tayal rek tax ñu nga jamono jiñ ñu toll nii nit da ngay nekk ak moom sax ci jàmm feebar mu daw la waxatuma laa ko xam ne façon métital bu nekk teg nga ko ci dundam nga feebar mu taxaw dimbali la dikkoon mi ma gis du lenn loo ko mën ba fay ko mu tuuti tuuti dinaa ko jéem ba tey du dara ci moom nag bu boobaa waaye jàppal ne lu mu tuuti tuuti ara man ndey ku ma lebal lu baax ma fay la lu baax. soxna ni Matu su sañoon dikkoon dellu ci këram dem toogi kër Tafa Sarr fii du palaasam. man de li nga wax jaaxal na ma torop ndax imaam fan yi ñu génn rekk ci ginnaaw bëggoo woon a gis Tafa Sarr ba di ko teg bët. tey nga ni dikkoon na dem dellu ci sëyam bee kër Tafasa. soxna si loolu bu ma la jaaxal li nga wax dëgg la waaye daa am lu may leerlu su ma ko leerloo dinaa ci waxtaan ak yow tey diggante dikkoon ak ndey firi jàmm rekk ci jàmm rekk ci war a am ndax dafa am loo xam ne dafa daggee ci dikkoon. dem ci ndey fili kooku nag kéemaanu suñu borom la. waa di kon am nga fit de. da am fit. Hmm. di kon yaa dem di opéré. <laughs> yaa may ree walla dëggan nga fit xool sa néegu yaasi di jeex da am fit. Nabou Leye Nabou Leye opération du dara. Hmm. wax bee rëy rek billaay. mën naa ne man mënuma laa expliquer sax man dara ci sama opération man daal xam nga lan laa ci am yeewu ñu ne ma pare nga ba fi may waxee ak yow nii comme ni ma koy waxee ñeen amul lenn lu may metti bilaay amul lu may metti en tout cas de am fit man daal xam nga laa bëgg mm-hmm. hmm? xool na sama kanam hmm? ñëwaat ci groupe bi continuer sama fecc fecc waaw <laughs> yàlla dama foog ne sa xel mi des fois day déranger wu wala yow man yow dikkoon yow man lan moo la dal wala yow sa yow yow war ngaa téye sa xoolaat sa xel mi bu baax de mu naan fecc xam nga ne fecc ak ndax ñun suñu fecc xam nga ne yëngal ndigg la ak lëmbal kase laal li moom boo koy def moom te amoo ree moom mooy pare nga ci. nawle xoolal gis nga li ngeen di xalaat ni ak di ko tiit bi ma paree damaa renseigné wu ci loolu docteur bi ma laaj xam nga lan la ma wax. mën nga def sa activité boo bëgg li ngeen def yëpp mën naa ko def hmm. parce que nee na ma carrément dindi rein teewul nga def say activité dikon ci oh. <laughs> ne naa school naka mu naka mu yaa si jàmm maa ni nabu yaa si jàmm naka mu naka mu mais di ko ñëw nga ah maa ngi sa kanam motax mo wala na fa ñew fani sa set ci la dina fa ñew fani ñepa ñepp ci jam alhamdullah dina fa ñew fani sa set ci la dina fa ñew set ci la inshallah de nga fakay sa dire jeuf dire jeuf sa penda baaji de la la waxal mi ngi lay nuyu sax ah ma ngi koy fay mba mu ci jàmm mi ngi ci jàmm bari ah kon alhamdullilah ah dañu waxal alhamdullilah rabbil alamin rek ah xam tafasar tafa ñëw na moom ñaari jéegam ah dafa ñibbisi nag ñaari jéegam ci fajar alhamdulilah rabil alamin alhamdulilah rek kay léegi ëpp baax na si ñam sa <laughs> ah waa mu yéena Sémou kii Penda la yéen. Sémou ndaanaan ah, ñëw na soldat deuxième classe. Matalik yéen 11 44 22 parti ndoo commando Sémou bi dama ne ki demoon ñëw na retour de Sémou du yomb léppay lewet dara du fi lewet bi dama ne dem naa faju juba ñëw macha allah war koo toj benn tey laa gën a man a wax tey laa gën a raakaat. waaw Sémou waaw. da nga a mu yéen a loolu moom. mooy toj Sénégal <laughs> man ngaa wax fara raw nga dugg naa Espagne faju def li nga war a def lépp nga war a yëngale ay yow fii dara dootu yomb yéen a ngi nii waaw lu wànq di doxul noonu ah wér te bëgg a ñëw dellu waat nag jël sama place di tojaat comme dab di yëngal di sarara yi <laughs> waaw yow kii sañse na di bu yee maasàllaa xool opéré nañ ma maasàllaa ndekete yow loo ci xamul penn mm. hôpital bañ ma entré woon fee ci Espagne ab Sénégalais sa ko moom mm. ah ndekete Tabara Ndiaye parcelle gii la dëkk taalibe sëñ Babacar nekk Espagne di fa liggéey di fa liggéey di fa liggéey bañ tuddee yow daal ma ñëw ñu jël ma dëpp ma ay laam bi ma maquillage jël ma montel ma laam nu bëy maa la wax lii <laughs> kon bu baal ma de nuyu ma la sax baal ma de mais lépp jàmm daal dara méttiwu la déedéet bi nga demee lu ne lu ne lu ne xalaat naa ko mënuma la jot. njool loolu c'est normal man xam naa di nga jaaxle ci man ndax ci man nga bokk mais nag alhamdulilah. di kon lu mu bëgg nga baal ma bu baax ndax yow bi ngeen ne fii di préparé wu def sa test beeg yëpp dama la waroon accompagné jàppale la. loolu non attends dafa nga di kon déglu ma rek ndax loolu suma diggante ak yow la bi ngeen ne fii di préparé di dem Maroc kon dama orang li gënoon rafet dama waroon ànd ak yow ba Maroc nga def test bi ini ci jàmm ne instant bi may wax dama am kersa sax ti kon loolu moom dama la ci jéggalu bu wéree wéree wéree wér waaw njool loolu amul loo ci jéggalu pour man loolu passé na instant bi li sama kanam comme wax na bu lay ñëwaat ci groupe bi na sama fecc ndaxte dama pareetul pour ànd ak Tafa dama ko bëgg a bàyyi ndey fili ndax mën naa ne sama xaaj moo ne ci ndey fili kon am na yenn yoo xam ne jaratul ñu fiy nekk ay wujjee fi jàppal bàyyi ah c'est bon loolu moom bul ko sa santé maye amul problème ci kanamu nabu mi laa la koy seedeel di ko maa ngi sa kanam maa ngi sa ginnaaw muy taw muy naaj yow loolu su ma la ko waxee sa di ko gëm di kon bul xalaat dara su ma ak yow bu ci xalaat dara lepp lu ci war dama koy dox te yag na la ko wax diko def dama koy def. ay ñu wax ay ñu wax ay ñu wax yow deg ay man ak tafasa rek dootu ñu defati li ak dootu ñu demate ndey fi sama jën ndey fi sama la rek nga bëgg buruk lo dugg fi dara xewagu fi nak pour nga nak rek leel dara xewagul. lu njëkkantu lu def mo ki li buru go sa nga bëgg na furet dugg. xali jeri jaxalu la si la daal jaari ñemewu ma ko daal jaari doyuma de hmm. daf maa nduru ko ñeme sëriñ nag daf la nduru ko ñeme sëriñ jaari doyuma benn yoon xanaa bi mu ñëwee clinique ba dafa fa doon def non pourtant waxuma dara nag waaye dama ko wul-wul rek moo ngi noonu du dugg néegu tafaa saar te xam nga tafaa ni mel fa lay nekk jiitu ci wax wax ñu lu ko neex pour jaari jiituñu ngay ragal ci Tapha su demee mun na fa wax lu ko neex amul benn sens xam nga lu tax parce que moom jàmbur la te ñun lii ñuy defendre daf ñu lew suñu héritage papa la donc luñ ci def rek war nañu te clinique bii ñun ñoo ko moom il est temps nag ñu jël ko def ci liñ ci war a def liggéeyaat ko ba mu jóg xaw ma kande mais man moom. duma sétane benn manipulatrice boo xam ne kenn xamul fu mu jóge mu ñëw bëgg a yàq vie bu dee côté boobu rek dalal si sa Ya. Tafa. Diagne. Tafa. Ça va. Ça va. jógal ñu añ Xadi ak Aysatu Saar ñu ci saal bi yow la naa lu nekk sama xel ceeb moo ci nekk ceebu ceeb bi moom laa togg togg naa ceeb bu nekk ceebu jën nga soo bëggee sax mën naa laa defar ataaya sama tuuba ah. waaw kay xam nga bi lan la ak jaare won ko ni jigéen nga ëpp la ful la gënu la jàng te gënu la am classe del def nii def sa tay yu ba mu mu yow comme di Omar di rek Omar bu nday dee ma génn Omar bu la génnee fi ci lu bax yow nga wëlbatiku defante ko jaari bam saf sap loloy deug <laughs> ay borom do ñu sax mooy muy tàdd place ñetteel noonu. Hmm. xamul ne dafa talu ko sax. <laughs> ay waay Aïssatou nee na day fiire magam noonu. waaw man de bébé Mouhamed laa bëgg a yóbbu ci ndey fili. ci kon yóbbu bébé Mouhamed teelu yéen yéen a soog a jóge voyage ji. ak cionay voyage xana di ya nga bàyyi yaay mu noppal ko ay fan kañ nga do ko yobbu deug la ñu ngi doog joge voyage waye voyage bi yep ndey fi daf doon jàmbat bébé Mouhamed lalu hôpital sa bu mu fi mu fi teud day wax mohammed mohammed rek ba ni ñi kon bàyyi ma yóbbu ko rek après suma démé demee lu muy décider mu décider ko su nekké daf may bàyyi ma indiwaat ko mu indiwaat ko su nekké tamit dafa bëgg mu tok ci mom tay ma bàyyi ko fa. waaye léegi xam nga nooy def ngay bàyyi ba ci kanam ba mu gën a lëndam nga doog a yóbbu ci yaayam dégg nga baax na waa nii daal ngay seet nii daal def nii sañ sañ nga laa suufi daal laa damay seet ndey fili mën a maa la jox loo soxla hmm. waaw rafet na trop mais nangu naa la loolu nag am maa ngi nii rek ay défilé nu mu def. défilé bu baax. baata doon reposé mi ngi doon nalaw allah macha allah dégg wér ñëw na rek sama xol bi sedd guy rek. dëgg naa sax ñu naan eh, dikkoon na ko may rek xaw ma. waaw dikkoon ko may rek gis nga de. ah wax dëgg yàlla loolu na ko may nag dëgg dëgg. waaw. boo see tamit dëgg hmm. naa ko de waaye doy na waar de. te moo ko te moom la noonu nag naay eh, yàlla si xam naa bu ci kanamee dama lay yónni fale géejawaay mooy boo ñëwee ba kii kàcc Cheikh Wade xam nga rompé fa Fadam. Mhm, voilà boutique bi nag moo jàkkaarlu école 18 si Jool famille xeer nga may demal am loo ma fa jëlal de ça va Dia. ça va. naka mu. ça va ça va bien. ça va naka mu. ci jàmm. waaw nag ça va yaa ngi. yéen a ngi nice. saa ren de yow tamit. pas trop fatigué. ça va ça va. yéen a ci jàmm. yéen ci jàmm waaw. pas trop fatigué. sonn naka mu. ça va alhamdulilah. ñëpp la bu baax. ñëpp la bu baax a baax. Wah. en tout cas <laughs> bon anu yéen rakyat rakk yu mel ni ñooy jafe na ci réew waaw ndax bay, ma rakk bu jigéen moo bokkal ndey ak baay ndax yéen ñaar ndax lu ne ngeen sama bànneex. leen hehe tekasaruima jarure ya, messima dégg nga sa discours yi mën nga koo téye ndax ñun say rek lañ donc lu ñu war dong la ñu def yow kay wax ñu plutôt voyage bi nu mu demee nga dëgg tey moom bés baa ya. neex voyage bi dafa neex waaw ya, alhamdulilah rabbil alamin lay wax lépp jaar si yoon ñu am ci ndam li ma doon si xalaat li ma si doon xalaat amu ci amoon na quelques complications mais après jàll na quoi waaw xam naa sant yàlla mhm. Eh, ndax yàlla moom su la bëggee dalay teg ay nattu waaw te yoonu bànneex boo gis yan bu dafay diis waaw ay épreuve ki jafe-jafe moom mënta ñàkk ci dund doomu aadama àjj na sax boo fay dugg faw nga jéggi siraat waaw kon faw mu tar faw mu metti balaa moo neex waaw comme dugg nañ ci jàmm te lépp jaar yoon lépp jeex ñuy sant bu baax a baax tey fili noo def yaram bi eh macha allah waaye sant yàlla alhamdulilah comme ñëw nga ci jàmm ak salaam. Mhm. bëggoon soo jógee fii. Mhm. nga demal ma kër Tafa Sarr. Mhm. ndax dafa am sama bagage yoo xam ne dama ko bàyyi woon foofu noonu. te mënuma fa dem jëli ko ndax xam naa ne ba duma ci bàyyi bu boobaa. moo taxoon ma bëgg nga dem récupérer ma ko indil ma ko fii. yow nag ba tey wéré woo de da ngaa ñibbisi nii waaye dina la yóbbuwaat nga faju ji defi li xool nga li ngay wax man nga yónni kër Tafa Sarr may jëli tax ba say bagage indil la la fii te ngay sëy gis nga loolu waaye am lu dul sëy sëy ko gën yow nag laa gëm ni yow mi yaay dem fekk sa bagage ci biir sa néegu sëykaay bi nga toog sëy sëy lu waay def lu dul sëy defoo leneen. lu fi jeli bagas, jëli bagage bàjjan sen dama bëgg nga déglu bu baax ndax décision bi ma jël ni seetuma ci mbokk seetuma ci xarit képp ku opposé wu ci lii ma bëgg a def man day ma bala ndax nag dikkoon amel naa ko bor boo xam ne ci àdduna leer na ma mënuma ko koo fay ba